asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dellu siwaat di seqat ak yéen seen jataay ci télé bi nekk ci biir jumaa ji eh, télé bi muxaddamatul xidma di saytu nekk banqaas bi yore wàllu communication di ci sant ñoom sëriñ Abdul Xaadir ak mboolem ñu àndal liggéey bi ak suñu techniciens yëpp tey nag ñu seqaat ak yéen beneen jataay boo xam ne eh, ci eh, silsila gàttanu màggal la eh, tey nag ñu am benn thème su ndaw su ñuy tuddee aadaabu ziyaara maanaam teggi ni ziyaare ñu bañ a rek guddal ca ñëw ci ci diggante su gàtt waxtu wi bu ñu fi tollee bu ñu fi tollee murit bu nekk mi ngi xelam day dem ci Tuubaa wala julit bu nekk rek xelam dana dem ci Touba am na benn ci kilifa yi mauritanien yi ku waxoon ne ziyaaratu Touba mujibu nasri wa safar liman zaaraha ahra iza saara fi safar wan ndax siyaare Touba day waral yooyu mu wax day waral ak ngañaay day waral ak tuuf rawatina ki ko siyaare ji ci jamonoy safar eh, siyaare it boo koy def jëm ci bërëb boo xam ne dafa bokk ci bërëb yi nga xam ne dañoo gën a ràññeeku bërëbu bérébu diine diine am na tuuti ay poñ yoo xam ne dañ ko fàttali danañ ko fàttali mu bokk ci poñ yi nga xam ne boo ko siyaaree du ñàkk saw siyaaree mooy gën ba njëkk ci poñ yi teggi siyaare nag ci diine ci lislaam ba ci njëkk mooy bëgg nañ nit ki buy siyaare ji mu mu nekk siyaare boo xam ne da cee ànd ak pas-pasu lu yéene yéene ju baax xam ne fi nga jëm muy màggal eh, lu Sëriñ Tuubaa woot waxoon la ne nañ ko cay santale boroomam kon boo demee santale li muy teg mooy defle boo demee na nga cay moytoo def loo xam ne bokkut ak li sëriñ bi waxoon ñun ñu defle defle ñu defle ko ca ci bis boobee mooy nga ànd ak yéene ju sell xam ne béréb ba ngay nekk béréb bu ñu man la wa man yuasim xurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi ca béréb yu worma yooyu ku ko wormaal mooy la gën ca moom muy benn ñaareelu poñ bi it mu bàyyi xel ne béréb yooyu day bërëb yoo xam ne ci fani màggal gi ñëpp dañ koy soxla maanaam mu bañ fa baril ay tànk yonent bi naan zur xibban tasdat xubban boo boo demee siyaara rek nga bañ yàggal sab ca biir béréb ba boo siyaaree it nga daal demaat ci sens ñetteelu poñ bi it nga bàyyi xel lépp loo xam ne jàpp nga ne lu juunoo la lu la ak murid muridiya murid muridiya du loo xam ne rek ab lu lu wurt daal nekk loo xam ne ay màndarga danga nga naan da ngay askanel sa bopp ci yoon wi di seet mandarga yi di ko def ak yi lay wane ne fii nga bokk ak demoon nga Tuubaa yu ni mel gën koo bàyyi xel ba tax doo sax sàmmonteeg ci wàllu col ci wàllu comportement ci wàllu yooyu yëpp doo ko def eh, ca nga bàyyi xel ne béréb ba ngay jëmit ci biir jumaa la nekk bépp war ma booy dégg booy dégg ci jumaa rek béréb ba laaj na ko rawatina jumaay Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne eh, luy war ma ci yoonu murid rek mi ngi fi ndax fi la fi gi nekk bu fekkee ne béréb yi ngay siyaare bérébu jumaa ji da da nga ko war a seet seet si dafa bokk ci ngay seet si nga xam ne fi la sëriñ bi nekk ak mbooleem kilifa yi yoonu murit xulafaa yu sëriñ bi ci ak njabootam ñëpp fi la nekk kon mooy bërëb bi gën a cher gërëb bërëb bi gën a tedd ci dëkk bi ci ni ko waxi sëriñ Tuubaa lëngale sax ci ab dundam kon nga bàyyi xel waxtu yooyu bu fekkee waxtu yi ngay duggit du waxtu yi yu ñuy tere ku fa naafi la bu fekkee lu manu la boo duggee siyaare ba bala ngay génnaat nga xam ne rawagu la jëfandikoo loolu yonent bi wax alayhi salaatu wasalaam di wax naan isa daxala ahadukum masjida falyarka rak'atayn qabla an yajlis euh, waaye boo toogee loolu weesoogut ñetteel ba it bu fekkee da ngay ziyaare si da ngay màggal si ña nga war a dalal nga leen di jox ay information ci yow yi wane ne da nga ñëw bala ñuy ñëw loolu bokk nañ ci teggin yi xam ne lislaam da koy faral di tudd ndax alxuraan naan laa tadxuloo bu xayra buyootikum xata tastanisu wa tusallimu dhalikum xayrun lakum laalakum tadakkaruun euh, loolu it boo ko mënee mooy la gën bokk na ci teggini siyaare it juróomeel ba mooy siyaare bi nekk siyaare boo xam ne dañ ciy séentu njariñ lu bari lu rëy lu mel ne màggal gi euh, bu boobaa boo demee ci béréb yooyu nag lépp loo xam ne lislaam da koy tare di yemale sa bis sa gis fañ ko war a yemale di yemale say jéego fañ ko war a yemale euh, la waykat ba waxoon rek manziluna rahbun liman zaarahu nahnu sawaa'un fiihi wa taariqu wa kullu ma fiihi xalaalun lahu illa allati xaramahu alxaaliqu muy moytu li nga xam ne suñ borom da ko araamal loolu gis nañ ko ci naaju xadaa il xaaj ci saraa bi sëriñ bi andi andi ci bayt nga xam ne kenn ci borom xam-xam yi moo ko waxoon eh, poñ ba mooy bu demee siyaare ji muy yem fañ koy yemloo xam ne ñi nekk ci béréb yooyu yu rawatina fu mel ne jumaa ji dañoo wuutu murid yëpp ci sàmm bërëb bërëb boobu nga bàyyi xel ne ña fa nekk yow lañ fa nekkal la ñuy def yow moomu la war bu fekkee ne war ma ji nga bëgg Tuubaa am ko war ma ji nga bëgg bërëb bu tedd boobu am ko dëggu na ci yow kon bàyyil xel ne ñoo fa nekk bari na ci ñoo xam ne ñu mel ne yow lañ màggal si daal di jaayante seen màggal parce que yéene ko wattu barab barab Sëriñ Tuubaa ba keroog ñuy dellu kon boo fa nekkee ngay sàmmonte ak ñoom la nga xam ne dañ koy digale ci ay sàmmonte ak bu mel noonu maanaam ngay bañ a yëkkati sa kàddu ba mu kawe ngay bañ a wax loo xam ne waxu wut rawatina nag ngay jiima def loo xam ne defu wut ndax suñ borom daan wax ci teggini siyaari yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa tarfa'u aswaatakum inda sawti nabi wala tajharu lahu bil xawli waaye nekk fi di wax ak di wax ay kàddu yoo xam ne ñi dëkk Touba de di fi yaroo yaroo fi juddoo fi ba toll noonu léeg-léegi image yu mel noonu wala kàddu yu mel noonu sax ñoom bu ñu ko déggee ñoom murit ñi dëkk Touba day étranger ci ñoom day tumuranke ci ñoom ne ab murit war naa mën a comporter woo noonu moo tax toujours ñi saytu yu mel noonu di gëm rek ne ak ñàkk xam la mooy waxtu yi bu jotee ci gàtt nu màggal ñuy fàttaliwaale poñ poñ yu mel noonu euh, di moytu it booy siyaare ji rawatina bu dee fu mel ne màggal gi lay doon ci béréb bërëb yu tedd yi rawatina bérébu sëriñ bi nga fay moytoo yàgg nga fay yàgg ca xam ne li nekk ci biir li nekk ci sa xol yàlla xam na ko buy siyaare si sëriñ bi la weykot arab ba waxoon daan ne wala xad amurru ala diyaari diyaari diyaari layla uxabilu sal jidaara wa sal jidaara wa ma xubbul jidaari saqaf na xalbi walakin xubb man sakkana diyaara béréb yi ngay siyaare di ko gis yëpp du béréb yi ca boppam béréb yooy la fa nekk ci ab taar moo tax ngay ziyaare si waaye ka nekk ca bërëb ba moo tax wama walakin xubbu man saqafa xubbu man zakana diyaara kon ngay bàyyi xel ñooñu teewlu ne sëriñ bi ngay seet si gën a fonk siyaare bi ak sa pas-pas ci lu dul sa téléphone waaye ñëw daanaka la ngay soxlaa la ngay soxla rek mbirum àdduna daal la cay dab bëgg nit ñi xam ne ñëwoon nga Tuubaa wala euh, yu ni mel moom ngay gën fonk sax ci di ko def euh, bokk na ci nag euh, siyaare ji sëriñ bi bu ñaan ci béréb yu mel noonu nga xam ne day béréb bi ñaan yoo mën a ñaane barke yow ñu ko alxuraan waxee hunaalika daa sakriya rabba am na béréb yu tedd yoo xam ne zakriya ci ci ci ci alxuraan ñi ngi wane ne foofa la ñaanoon boromam comme bërëb yooyu béréb bu bu ñu yaakaaree ñaan la ni ko sëriñ Tuubaa waxee ci masaalikul jinaan béréb yi nga xam ne yaakaar nañ ne boo fa ñaanee suñu borom nangu bokk na ci béréb yi nga xam ne nit ñu baax ñi rawatina suñu kilifa gu tedd gi dafa nekk muy bérébu bu kon na profité ñaan fi rawatina yow mi dëkku ci dëkk bi ba boo delloo ñu wuy na ci la nga fay def it mooy addiyal sëriñ bi ay ñaan loolu nag moom ci boppam bind na danañ ci jaar du ñàkk da ngeen ko gis ci image bi muy bismillahi rahmaani rahim allahumma bi haqi wajhillahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi waxfir lii wa liwalidaya wa lilmuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat al axyaai minhum wal amwaat wa habli xabidika wa xalilika wa xabibika wa xadimi rasulika sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa baarak wa baraka wa xalilihi wa xabibihi alayhi asalaatu wassalaam bi alihi wa saxbihi ma ahbabtahu wa hab wa raditahu waxtarta lahu fi lxaali walmaali bila afatin wala kadarin qabla alhibba wa inda lu mel ne ñaan ñaan gu mel noonu di ko addiyal sëriñ bi bu boobaa rek rafet nañ njort ne yow sab siyaare ji amaakin muqaddasa yii nga xam ne nekk nañ ci béréb yi muy béréb yi nga xam ne rafet nañ njort ne boo fa ñaanee suñ borom nangu ko ca ñi ëpp ci ñi màggal si di wuy di sant le si Serigne Touba di def le si la Serigne Touba daan def ca bis ba dañuy bëgg a ci biir màggal si googu nga xam ne Serigne Touba moo koy woote muy toujours ki fi nekkal Serigne bi mooy am sañ-sañu di ko woote bi Serigne bi santaane màggal. ci ay jamonoom ba noppi sëriñ Tuubaa it mooy am sañ-sañu toujours di ko woote kon boo ñëwee it nga fay defaale yu mel nii ak di fàttaliku poñ yi da am solo ñoo ngi jégglu ci guddal gi in uridu ila al islaaha mastataxtu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ya rabbi ijaalil muridina maa fi hisnikal hasini wasamlaj maa ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci di ñaan kilifa gi sëriñ xaafi ak mboolem ñi àndal liggéey bi yëpp suñ borom yàggal leen fi eh, ci barkeb sëriñ Tuubaa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ci yàlla ak ci ngeen ji yoon nen ñu